dugal ci page YouTube bi nga tappe li nga gént bindal sa gént dangaa gént kurus bindal ñu indi la vidéo bi dangaa gént sajaada bindal dangaa gént dàll soo bindee rek on vidéo bi mooy ñëw automatiquement ñu wax leen ne dañu arrêté gum transfert Wave 500 yi ak audio WhatsApp yi ba ci kanam sauf que ñi nga xam dañoo nekk bitim réew système bi ñan bàyyi doon mu ngi maintenir ñu ngi continuer ba koo xam ne nag da nga bëgg jot ni téléphone ñu firil ñu firil la mën na nekk mais ñu ñëw ci tey bunt bu am solo boo xam ne euh, laaj yi ñu ciy faral di am bari na mooy gént gis nit ko siiw nit koo xam ne ko ñëpp xam la par exemple gént gis benn ministre gént gis benn kilifa diine ku mag gént gis benn journaliste bu mag gént gis koo xam ne médecin la ku nit ñi xam gént gis benn artist bu mag ngeen di gis benn footballeur bu mag ngeen di gis benn joueur théâtre bu mag yooyu day faral di am ci gént yi lan la fii euh, bidaayatan li ngay jàpp ñaar ya boroom xam-xam yu bari dañu wax ni ça dépend ci nit ki nga gis euh, nit ku siiw nga gis ci lan la siiwee ñaar day firi gént bi maanaam ñu mm. bari day jàpp génn nit ku siiw ñépp ñoo bokk maana am noonu li ëpp ci ñoom kenn ku nekk ci fànn ba siiwte mu ëppee gént gi loolu lay wax par exemple danga gént gis benn journaliste bu mag walla benn journaliste bu nit ñi xam ci réew mi mu nekk nit ku siiw nga gént gis ko lan lay firi dafa dellu ci yow aji génte gi nga nekk nit koo xam ne ku yàlla dimbali nga am jikko ju rafet léeg-léeg waaye li ëpp ci limuy muy firi mooy leen firi nga nekk nit koo xam ne nit ku mën a denc secret jàmbur nga ku nit ku waxante yow secret danga ko dencal wala nga nekk nit koo xam ne nit kuy wax dëgg nga wala nga nekk nit ku bari lu la nit ñi wax seen seen soxla nga di ko denc alaakulli xaalin bu dee journaliste la loolu lay firi da gis benn politicien bu mag nit xam ci wàllu politique nga gént gis ko lan lay firi day firi yëkkatiku yow ci sa bopp ci place bu kawe moo xam ci palaasu liggéeyukaay la maanaam nga dem di liggéey ci barab bu siiw walla nga ne barab bu baax nekk ca place bu kawe wala nga nekk ku yokkute wu yëkkatiku ci sa wàllu liggéey kon kooku baax na danga gént gis médecin par exemple gént gis médecin su fekkee da nga nekk nit ku feebar wala nga am ay jàngoro day firi wér ci feebar bu fekkee dara dalu la nga gént gis benn médecin koo xam ne ku nit ñi xam ne day firi mucc ci ay jàngoro wala mucc ci ay problème ak i tolof tolof wala naqar wala dëgg kon bu dee yaa ngi comprendre ñaari ñi ëpp ci liñ siiwee mooy la am solo da nga génn nit koo xam ne moom ci liñ ko xamee mooy fo mooy caaxaan mooy tëgg mooy et cetera yu mel noonu dafay firi firi yow sa jën bopp nga nekk nit koo xam ne nit ku bëgg fo nga nit ku bëgg caaxaan nga nit ku sàggan ci sa diggante sa borom nga euh, da nga gént maa ngi ci kilifa diine nga gént gis kilifa diine. su fekkee kilifa diina nga gént gis dafa am ñaari maanaa ñaari firi su boobaa yow sa jëm bopp mi gént gént da nga jàpp nag ak quatre vingt pour cent gént gis kilifa diine baax na waaye pour tontu la mooy situation yi mu la fekk jamono yi ngay gént gént gi ndax dangaa nekk nit koo xam ne sa wàllu diine ku ci sàggan nga nga ne waaw nga ne ñen la boobaa gént gis soññ la ci yow ci nga góor góorgóorlu ci jaamu yàlla dangaa nekk nit koo xam da nga bëgg fo di taxawaalu gént gis kilifa diine soññ la ci yow ci nga góorgóorlu dem bàyyi fa ma dem ci jaamu yàlla ñaar yépp benn amu ci maanaam nekkoo ci caaxaan sàgganoo ci sa diine yaa ngi góorgóorlu la nga mën bu dee yaa ngi def bàkkaar fësul comme xuusuloo ci di ci yenn suba ngoon comme maam Góor Saar su boobaa gént gi bokk na ci gént yi gën a baax dana firi ay xéewal yu bari yu nekk ci yoon di ñëw dana firi wërsëg dana firi uh, barke ci yow dana firi yàlla mën na laa dem nga nekk dimbali nga nekk nit ku amal njëriñ société ba nga bokk wala say mbokk moo tax mu wax la sànq ni la ak quatre-vingt-quinze pour cent baax na bu fekkee dafa la fekkee ci aajo wala ci ñaan dara day firi aajo boobu wala ñaan googu luy sotti la alaakulli xaalin ku boobaa day nekk lu baax. bu fekkee footballeur bu ñëpp xam mu siiw ci gént dafay firi yokkute ci sa liggéey wala avancement léeg-léeg euh, ala kulli xaal li nga jàpp mënumaa lim ñëpp bu fekkee dafa nekk koo xam ne bu nit ñi xam ci ndombal tànk par exemple benn ministre bu kawee wala yu mel noonu day firi yow nga nekk nit koo xam ne ku yàlla dimbale ci yëkkati ci yokkute wala nga nekk nit ku mën a sonn ci soxla jaam benn bu nekk boo ko toppee sam xel war ngaa mën a firi sa bopp soo géntee gis nit ko siiw lan la war a mën a firi moo tax danaay wax toujours ne gént day xam-xam bu ñuy jàng bu sérieux moo tax des fois dangay gis ku ne dama gént nit ko siiw rek nga ne ko waaw nit ñu siiw ñëpp bokkuñu benn àtte ci firi déedéet sans dépend ci nit ko ci ban fànn la siiwee ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné partage wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu